asalaamaaleykum suñu mbokk internet yi di leen nuyuwaat bu baax leen ziar di leen bëggee yéen ñu siiw si Wassare Lamb Wassare TV kon ni ñu koy defee rek à chaque fois ñu naan leen à chaque fois dañu xool ñi nga mu ngeen bëgg da ciy dox parce que ñu naan leen saison bi wax dëgg yàlla bi ñu continué leen di làmbal nag fépp foo xamante ni rek soxla ñu fa tey nag ah ñu ngi seet nag un promoteur mu nekk un promoteur ba pare nekk promoteur bu bees bu mën a wax mu nekk ci ñëpp gis nañ ne daaw moom mu tëgg combat bu neex muy combat jante ak nga xamante ni moom cat mi ah, mu nekk na koo xamante ni lamb am na ci moom yaakaar moo tax ñu seet si ko fas ak moom muy Mouhamed Boun Diamond Avance ba pare nekk ci association des promoteurs ah, authentiques mu nekk nag secrétaire général tey dañu waxtaan ak moom ci li ne moom mooy làmb ne mooy làmb waxtaan tam ci euh, ñu ngi lay nuyu. Fatima leen nuyu yéen waa wasaare suñu làmb du nuyu Sénégal bi yëpp. du nuyu sama mbokk promoteur authentique yi en en commençant par le président Dieye Sène ba ci ñoom Jibi Ndiaye ñoom Baba Diaw ñoom Abdoulahat ñoom Baye ñoom ñëpp ñoo ngi leen di nuyu. Mhm. nuyu bi am na solo moo xam ne moom daay mën avance mais daay mën avance bi mooy mooy mooy mooy mooy lan xam nga dégg na bari feeñ quoi moo xam ne daay mën avance. waaw daay mën avance bi dañoo toogoon ah man ak samay samay ay xarit di waxtaan bëgg a créer benn affaire bu bees léegi ku nekk di indi say élément ku nekk di indi ay tur. bañ bañ indi ba Eva génne turu Diamond Events bi comme Diamond ça mooy jama quoi ça lu précieux la loolu moo waral tur bi quoi. Mohamed euh, ñëpp gis nañ ne Arsan bi làmb tool ko nga xam ne yëngu tey sa bureau la ñu toog làmb lan moo tax nga parce que gars yi dama gis gars yi di Mouhamadou waaw hmm. liggéey boo gis soo amul fit doo dem muy lépp ah léegi wàllu promoteur moom kon lu ma xëy waxee à chaque fois ñun bëre mooy suñu cosaan sport boo munti jël tay muy football muy handball yeneen dëkk la jóge ñun bëre mooy suñu cosaan moom la xam tey mënoo juddoo fii Sénégal yaroo fi màggee fi te doo bëgg bëre c'est impossible ñun ay amateur lañu woon. ba pare man damaa bëggoon bëre parce que Tapha Gueye moo nekkoon sama mbër chaque jour moo xool nit ñi. Mm-hmm. loolu moom gën a poussé ma bëgg làmb. Mm-hmm. Mm-hmm. bëgg làmb nekkoon amateur daan seetaani. daan daan seetaani làmb. chaque dimanche nii suñu musaanu dem dara suñu seetaanul football football nag moo nekkoon suñu sport préféré. suñu seetaanul football si làmb yi amee dañ daan dem stade di seetaani di ànd ak ay mbër amoon ay xaritu mbër tamit doon ànd ak ñoom waaw loolu gën ñoo poussé.

ñu toog ma waxtaan ak moom mu ñaanal ñu ma waxtaan ak ñu ma war a waxtaanal yëpp. Mhm. après waaw gars yi ñoo ngi ma doon wax làmb lii làmb lee mais ñu ne ma essayer rek xam nga loo tamit da ngay essayer su fekkee am na côté positif nga dem fekkee am na côté négatif tamit ngay doog a reculer quoi. Mhm. après sa premier guddi ñëpp la mais yéen si na ci kan mooy benn jeune la juddoo Géejawaay notaire notaire laa juddoo foofu laa màggee foofu laa yoroo foofu laa dëkk tamit nii ba tey waaw nekkoon benn xale boo xam tamit xale bu somoon la xale bu lëcc <laughs> waaw jànge fii jàngee naa fii. Mm, école Notre-Dame di Cap-Vert bu nekk fii buntu ki buntu Pikine foofu laa jànge après jànge naa benn cours privé bu nekk Géejuwaay littoral jàng foofu laa jànge jàngee alxuraan tamit Géejuwaay benn franco arabe bu nekk marché Ndiarème après ma dem à l'âge de 17 ans mu dem Europe foofu tamit jot naa faa jàng am tuuti xam-xam après ma ma ñibbi fii fekk sama waa famille créé benn entreprise ma tam ma ñëw ñibbi di liggéey ak ñoom. Mhm. Mouhamed am na solo parce que tamit gars yi ko doon ñu lay seetaan kon dama wax rek mu nekk jeune promoteur boo xamante wax dëgg yàlla dama dugg ci nangu combat sa combat sax eh, am na yeneen eh, journée yu amoon mais gënuñ tëgg arène nationale macha sa combat bi ñu njëkk sa première journée nan moo tax ngay jël choix jant eh, yi ak jat yi ak première journée bi waaw problème journée bi. dañ see dañ see waxtaan dañ see waxtaan man nag ñoom Abdoulahad Ndiaye ñoo toog waxtaan ñu ne nañ def combat jandi jëm tëri ñoom tamit seen écurie yi ak seen manager yi ñu yombalal ñu affaire yi ñu yombalal ñu affaire yi mu nekkoon combat bu mag parce que tey foo dem Sénégal dañ dañ lay wax bëggaat dem rek si mujj benn sama benn copain moom moo xay wax mu naa ma noo def ba taxawaloon combat boobu parce que amateur yi coach wax dañ naan la combat boobu benn combat di ko dàq si saison bi mm-hmm. mu nekkoon tamit combat bu neex bañ ñëwee ñaari mbër yi wane jom wane fulla bëre bëre bu neex gëjoon nekkoon États-Unis <laughs> waaw xam nga loolu liggéey ab laxaat la moom macha allah. moom mooy <laughs> mooy xaritu nit ñi quoi. comme nit ku oyof la nit ku baax la. waaw pour man arène national duñ jël benn infrastructure bu mel ni arène nationale ñu ne def nañ si tant de milliards ñu dem si stade football non non lañ fa dem parce que pour bëri la. la gars yi dem pour bëri ji foofu man loolu laa ji man man sama choix foofu la woon même suñ ma joxoon Ibama dama laan leen foofu laay dem. waaw. ak frais bari na parce que ñoo ngi ñaan ministre bi mu wàññi ko mais tamit kon amuñu woon choix tamit nañ fa dem rek. tamit soo xoolee mbëri mbëri ñu jëloon yu bari si banlieue bi lañ dëkk ni ñuy jëlee ay oto di dem ba Ibamar ñu dafay ko fii arène nationale tamit fii lañ dëkk. Mhm. nga tëgg combat bi sa premier journée gars moom positif. Mhm. ndax bu demoon négatif ay perte ndax yooyu mhm. noonu. gis ni moom macha allah. Mhm. ah journée bi mu demee. waaw sant yàlla alhamdulilah am na tuuti kii mais tamit loo liggéey boo gis début bi mm, du xaw a neex mais au fur et à mesure ñuy dem expérience bi di ñëw ñuy am leneen ak leneen sant nañ yàlla ko première journée bi parce que man fu ma doon xoolee mooy. comme bëri nañ ko ci jàmm amul violence amul dara loolu moo gënoon nekk sama objectif quoi. Mhm. après dafa amoon waaw taxawal taxawal nañ Youssou Ndour mais comme vu mois de juillet la vu que at feebar bi moo bébé julde mais vu at feebar bi moo tax léegi dañuy dégluwaa waa CNG rek. Mhm. Mhm. mais waaw. ñu gis ne waxoo ko Abdoulahat Ndiaye ñu ngi taxawal ay combat sama borom ñu koy nuyu au passage nekk baax ko am te nga siy jàpp ñu gis ne yéen promoteurs yi association ñaari association fay ak Mouhamed. association bu euh, moo ko dirigé mooy association des promoteurs association des promoteurs authentiques gars yi ñëpp ñu booloo nekk benn ki aw gauche ki aw droite yow moom nga ñëw nekk authentique. ak waral loolu. waaw nañ waaw ñoo ngi ñaan yàlla ñu ñëpp ñu booloo. Hmm. doon benn. man dama fay fekk lii. mais man ñeneen ñi xaw ma leen xaw ma si kenn. Ah, ok waaw ah, man waa xaw ma leen mosuma say toog ak nit xaw ma si nit. wax dëgg yàlla. Hmm, parce que xaw ma leen man euh, Baye ñoo bokk benn koñ bu ñu dëkk Baye. man ak moom seen kër laa yoroo ñoom tamit suñ kër lañ yoroo euh, jéey tamit ñoo bokk fu ñu dëkk géejuwaay xamoon naa ko avant kon su ma demee bay dugg si làmb ñu ma xam su ñooñu laa mën a dem pour waxtaan ak ñoom ñoom tamit ñu teg ma si si si yoon. Mhm. Euh, Eh, eh, Samb moom noonu relation ak association boobu amoon na relation amicale. non non xaw ma leen à part gis leen nii si télé bi musuma say toog ak nit nii. Mm-hmm. waaw mais tamit man parfois nii su ma demee làmb mun naa bañ a toog fu promoteur yi di toog mun naa éloigné wu man ak samay copains ñooy ànd moo tax. Mm-hmm. Mm-hmm. mais seet ko sax ay nuyoo eh, si su ma leen gisoon dama leen di nuyu mais ça veut dire que musuma leen gis musuma dox ba tasante ak ñoom.

si àdduna su mbooloo jàppee si ngay si lay gën a demee si man kay bëgg naa loolu su ma sañoon ñun ñëpp ñu doon benn di yëkkateendoo di dóorandoo doon benn xama waaw loolu laay ñaan yàlla tamit. waaw man pare naa mais man tamit dama am man dama am kilifa si lépp soo xoolee. si wàllu làmb ñoom ñoo si sama kilifa soo xoolee man maa si gën doon xale ñoom seen ginnaaw rek laay topp te boobu ba commencé ñoom ñoo ma jàppale ñoom lu ñu rek man pare naa ñoom maa seen ginnaaw muy ñoom jéeg ñoom laat ñëpp man maa ngi seen ginnaaw. Mhm. beneen bi mhm. mhm. waaw Aziz kiiwuñu noonu sax mais Baye. Euh, dañoo bokk fi ñu dëkk ñoom am na seen man mag bu jigéen Xadi Njaay yaay laa koy wooye parce que ba mu nekkee xale si moom laa doon nekk moom tamit danaa nekk suñu kër bàyyi tamit day ñëw day ñoom dañuy ñëw suñu kër foofu lañ yaroo ñu tamit seen kër lañ yaroo ay presque ay mbokk lañ ñoo bokk fu ñu dëkk ñu nekk ay nit nit yu baax ñu juddandoo yarandoo màggandoo mosuñoo am benn problème kon tey su ma duggee si làmb su ma buggee dara te moom bu njëkk ma si nekk sama grand frère di ànd ak samay nijaay damay dem côtoyer ko parce que tey mm, kenn du wax làmb da doo tudd Aziz Ndiaye loolu mënul nekk fii Sénégal mm-hmm. non non parce que lu mu fi def waxuma keneen dina ko fi def rek mais yombul nit def ko ñun ñu dëkk géejuwaay suñu bëggee làmb moom si la bokk Balla Gaye si la bokk mm-hmm. Mm-hmm. parce que avant ñoom ñii ay Fass lañ doon supporter ñii ñeneen ak ñeneen mais ñoom bañ ñëwee ñoom ñoo tax ñun ñu bëgg bëre. xam tey si histoire bëre kenn du si génn Balla Gaye kenn du si génn Aziz jaay loolu mënul nekk. Mm-hmm. loolu mënul nekk. Euh,

xam nga tamit kenn bëggul financer ay millions ba pare di perte xam nga loolu xel nangu ko mais su amatul ay sponsor tamit gars yi dañoo wàññi war a wàññi kase yi dañuy fayeku parce que soo amee sponsor tey su la sponsor joxoon cent million mun nga fay mbër bi 80 millions wala 90 mais léegi sponsor amatul mu moo tax dañoo war a toog ñun ñëpp làmb pour mu sauver wu il faut que état bi dugal ci loxo ñu ko bokk toog di waxtaan. ñu xool làmb ji fu mu jëm pour yenn mbër yi tamit wàññi seen yenn cachet yi parce que mm, tey xaalis boobu amatu fi il faut que état bi waxtaan ak entreprise yi ñu ñu ñëwaat sponsoriser làmb mm-hmm. loolu daal mooy tax mu dox. état kon yéen yéen dara. duñ ci dara parce que nit ku nekk tamit li nga def li nga mën ngay def ça di dire que man duma taxaw fii ma ne damay fay diw 100 millions te yoruma sama poste 10 millions yu mat kon maa ngi nax sama bopp. léegi dama ciy dugg ba pare am ay problème indil sa bopp problème indil sa ñi ñi la jege problème balaa ci am nga def loo mën ku mun tëgg làmb 1 million mu def ko ku mun tëgg làmb cinq cent 500000 mu def ko ku mun tëgg làmb 100 million tamit ko moom mu def ko. mais yéen da ngeen di concurrence ak yeneen eh, kii bi beneen association ndax gis war a fay 7 millions kii war a fay dégg yéen da ngeen di fay plus. non non non ah gars ah gars yi ñu ngi koy de mais yéen instant bi tey Fallou Ndiaye tegee 10 non non non non loolu loolu bi passé loolu gars yi waaw parce que loo gis rek loolu gars yi dañuy wax parce que pour man loolu amul man de mosuma ko dégg ko ko def wax dëgg yàlla te man tamit mosuma ko def mosuma dégg su ñun kenn def ko damay wax rek te yàlla tax waaw loolu moom xam naa Sénégal nag xam na ñun moom suñu dëkk bi nit ñi dañuy wax loolu mun a ñàkk fii soo fi nekkee Sénégal bul bañ. ku la tuumaal waaw man de man de bañu ma ko parce que ñun suñu réalité à chaque fois da ngay dégg ñu ne nit def na lii wala lii wala laa te fekk loolu amul. Mhm. waaw bien sûr parce que tamit jeunes yi dañoo soxla bëre demal ci écurie yi écurie boo dem da ngay gis ay quatre-vingts ou cent personnes ñaata yi ñoo nekk Sénégal Sénégal tey ñaata lutteur la am. ñun daaw ñaata journée lañ taxawal. macha allah. macha allah te yàlla na continuer. Mm-hmm. Mm-hmm. beneen bi mooy yéen wax dëgg yàlla am ngeen bëri àq seeni billet yi ngeen di jël di ko jox mbëri mbëri sonn nañ mbëri nee nañ dañoo sonn parce que léegi dañuy mbër ndeysaan day sonn am combat tey nga jox ko billet ne ko boo ko jaayee jël sa avance. tamit yéen nga wax yéen ñan. ah yéen promoteur man non man bokkuma man mbër bu ma waxanteel dama lay jox xaalis. sa avance loolu wóoruma. non si man xama pour ñaata mbër nag ñoo fi ñëw daan ne a jaay xam nga léegi mbër yooyu nañu wax yan promoteur la. Ah, léegi mbër yooyu noonu. dañuy wax yan promoteur ñu tudd tuur promoteur yooyu noonu di ko def. Mm-hmm. Mm-hmm. non non non non ñun kuñ taxawal dañuy sa ménager day toog Abdoulahat toog ñu bind jox la sa avance nga dem. Mm-hmm. mais ñoo ko gisee ba bëri nga xam ne sax dañuy jël bee nee nañ seen avance loolu noo ko gisee yow pour yow quoi noo ko gisee. pour man waaw loolu du ma siy sori. mais noo ko gisee. parce que damay dégg rek man dégg laa ci am. mais tamit yow loolu nan nga ko gisee tamit. du ma si du ma du ma si sori. waaw du ma si sori. <laughs> war na pour ñu ñuy suivre sur la Saare Lamb Saare TV tey nag ñu dalal ki nga xamante ne moom Mouhamed borom Diamond Events mu nekk koo xamante ne jeune promoteur la waaye marqué na empreinte tam parce que dëgg yàlla gars yi xam nañ ko def na daal ci lamb ren dëgg na combat bu neex jëm ci ak ñoom moom mooy jàdd combat bu am problème nag bu am problème parce que jàdd yi gis nañ ni contesté woon wax ji bari na xam nga mais bi ñu gis ne après jàdd seen combat kii bi dafa gën a mën a yokk parce que gis nañ ni contesté woon. dóor la ko sa làmb ji dafa jax dafa man loolu dama koy dégg mais après ah. suivre ma ko parce que man parfois damay am problème de temps parce que sama liggéey mooy tax parfois damay am problème de temps dinaa suivre yenn émission làmb yi mais du yëpp na parfois su ma wàccee damay sonn je préfère ma tëdd nelaw dallu. Mm. Mm-hmm. mais après parce que man après. dégg naa nit ñi di ko wax rek mais su fekkee tamit dafa dugal recours moom am na droit pour dugal recours parce que loolu CNG may na ko mbëri waa mbër bu nekk am nga droit parce que du moom kese moo fu njëkk a def mm, làmb yàgg na fa am coow ñu naan mbër bi moo daan mbër bi daanul affaire yooyu après CNG ñoom ñooy arbitre yi ñoom ñooy arbitré. Ahmed

ñoom si ñoom am na meilleur mais man damay mal placé pour wax la meilleur. non xam euh, mhm. am mhm. nga waaw xam nga su fekkee lit tey ñëpp xam nañu Balla Gaye bi su bëree su jàppee day bëree moom loolu point fort am la soo gisee bërëb yëpp su la demee ba jàpp ba tee la gars yi dañuy ñibbi parce que da lay daan. Balla Gaye qualité bëre moom dafa am comme qualité yi nekkoon ci Tapha moo nekk ci moom Eumeu Sène tamit noonu ñoom ñëpp soo ji soo soo leen jëlee par kenn kenn ku nekk am na foo mu ne mhm. parce que ñoom dañoo daanante seen biir ñoom ñoo ñu nga gis ñëpp kii daa daan kii kii daan kii kii daan kii que Eumeu Sène daan na Balla Gaye deux fois Balla Gaye daan na Modou deux fois Bombardier daan na Balla Gaye euh, Eumeu daan na Bombardier euh, Balla Gaye daan na ñoom ñëpp dañoo daanante seen biir. Mhm. waaw ñoom ñëpp ay meilleur lañ ah, mais am na ku si nekk le meilleur daal. Euh, waaw ba tey mun na nekk <laughs> yow yaa ko wax ah. <laughs> tey yow boo amoon tey na mais bien sûr Taphatine mbër la kon mbër yëpp. bien sûr su ma xum su ma demee ba pare ko dinaa dem seeti waaye staff ñu tëgg ko. pour man non wóoruma lu tax amul ko gisee nii daal comme en yenn mbër yi ñoo xay bañ mun na mun na nekk mun na nekk loolu tamit. mën na nekk yenn mbër yi ñoo xay bañ mais mbër la kenn mënu kaa génne si mbër yi. Mhm. si mun na nekk mun naa taxal seen combat. Hmm, ah, bien sûr si mun na nekk déwén mun na nekk après beneen année. mun hmm. na nekk. waaw ah, ñoo ngi si ambition boobu ñoo ngi ciy liggéey nànk-nànk. Hmm. Mhm. Ah, ñu gis hmm. hmm. eh? ni ci kàttanu yàlla déwén incha allah si lay kiiwee affaire âge bi parce que mën nañu am déwén si la amee 45 ans abas ah. 45 ans te ñu bari ne dafa am lu ñu yore revanche war naa may revanche ba mu ne Modou Lo Eumeu Sène war na ko may revanche am ñu ne doyaluñ ci moom âge bi 45 ans déwén lay yow loolu nan ko gisee. est euh, euh, euh, waaw xam nga taxi yi ñoom ñoo bind lool ñoo ne mbër bu am 45 ans foofu dangay retraité que ñun suñ ko buggaatoon mu bëre maanaam may ñu kii bi yoon may ko ko parce que waa CNG ñoom seen taxi ñoo bind ne mbër bu am 45 ans Tapha Gueye ba muy bàyyi bëre man bëgg woon mu bàyyi bëre. parce que moment boobu man moom laa doon supporter Bombardier tamit ay fansam ay duñu bugg bugg teel a bàyyi parce que mbër la Bombardier moom ci mm, la bokk parce que ku jël deux fois roi des arènes doo doo cuune mhm. léegi fii ak déwén la gars yi xool ku ko mën a tëgal combat ñaar ba ñett ndax mu may yenn mbër yi seen sens parce que tey mbër yëpp doon rêvé bëre moom avant moo bàyyi bëre. jarul comme texte yi gars yi Sénégal rek la xewee ndax amul sport bi naan la fii ngay yem est tey jarul tey bu ñuy ñaan suñu ministre suñu Pa Matar Ba boobu noonu est-ce en tant que promoteur bëggoon ñu changer boobu tuuti. waaw mais sport bu nekk ak say contexte tey hmm, lamb dafa mettre parce que am na yenn age yoo xam ni tamit dootoo ko mënati tey ku am 50 ans yenn effort physique yi dootoo ko amati pour pour pour bëre. yenn entraînement yi coono yi dootoo ko dajati parce que boobu yaa ngi dugg yaa ngi jël âge mag nga koi tey bu ñu jël yenn sport yi di ko tëkkaleeg làmb parce que football xam nga léegi football du amuñu âge de retraite mais ku dem ba am ay 37 ans da ngay gis ni yow yaay dem ba bàyyi football yow yaay bàyyil sa bopp parce que entrement yi métti na yenn effort physique yi dootoo ko amati tey soo xoolee. su football sax da ngay gis mm, club yi si seen joueurs yi commencé am ay trois 33 ans 34 ans ñu jaay la wala ñu yóbbu la ay Chine wala ay Dubaï yeneen dëkk yi tey xale maanaam yenn âge ñooy def sport quoi. xale mooy def sport mm, tey mag munul def sport xale mooy def sport yenn âge yi yow yow même même si la waxul retraité yow yaay dem ba retraité parce que doo bëgg ku la humilier. Mm-hmm. gars yi d'accord ci 45. naa si ma ah, mën a bëri yéen est-ce que yooyu noonu yéen koy bàyyi xel que ni yéen instant bi bëri ngeen tëggoon rek yéen la ngeen jëmoon noonu. waaw xam nga ñun nekkul suñ coobare man su ma sañoon ñu ma jox avance mois de juillet bu ñu bëri parce que jox naa leen seen avance mais mënul nekk li phénomène mondial la ban secteur la touché wul secteur yëpp man toog naa fi deux mois yoo xam ne suñu liggéey doxawul noonu mais dañuy sant yàlla chaque jour nga dégg hmm, élèves yi di kaas professeurs yi di kaas transporteurs yi di kaas leneen ak leneen di kaas ñëpp la touché. monde bi ñëpp am crise du ñun suñu dëkk kese nga dem en Europe aux États-Unis fu nekk en Asie fépp am problème kon lépp loo gis rek waxtaan la dañuy waxtaan trouver beneen solution waaw. dégg comme déwén comme dagg licence ñu ngeen di ñaan comme waa CNG xam nga ngeen bañ a gàtt. waaw bien sûr parce que tey secteur yoo gis fii tey gouvernement bi jàppale na leen secteur yu bari la gouvernement bi jàppale ñun pourquoi pas tamit ah. Mm-hmm. est-ce parce que affaire mais loo gis waxtaan la mun nañ toog ñu waxtaan ñu trouver solution loo gis rek waxtaan la waaw ah, ñun dañuy ñaan yàlla rek. Mm-hmm. beneen bi mooy noo gisee soxna bi ndax gis nañu ne yéen promoteur am nañu d'accord Alioune Sarr am nañu d'accord mu ba ñu xamee naam ba léegi ñoo fekk ca ñu defar làmb que waa CNG dañu saturé sans neuf lañu soxla noonu ngeen ko xam nga seen i combat waaw lu may wax rek loo gis waxtaan la que arbitre yi demoon nañ ba fii ñëw nañ ba fii mënoon nañ toog waxtaan ñoom ñu toog waxtaan sañ biir bu fekkee dañuy kaas li leen fay ñu xool ñoom nan la leen koy yoxlee gis nga àdduna que su bépp domaine waxtaan dafa baax mhm. tamit ñu jiite di di di muñal ñu nekk ñu topp seen ginnaaw parce que man su ma jiitee ay nit tamit nit ku nekk ak say façon man maa war a xool nu ma leen di jiitee di leen muñal yërëm leen tamit. naa waaw man maa ngi ci ginnaaw ñëpp ah. Mhm. baax na ba léegi non ma xam ne nag yaa ngi jaay fi rek euh, beneen bi mooy ko ne moo nekkoon sa mbër ban combat moo la combat yi ma na mais premier combat bi boo xam ni man moom laa njëkk a seetaan muy moom maam njambaat mooy ba muy bëreeg moom dóor ko di daw di admé di aneer maam ma njambaat di ko song Tapha Gueye di ko mbott boobu laay combat Tapha Gueye ma njëkk a seetaan mhm, boobu na ma même ba muy daan la de Guiers di def rotation ak moom boobu tamit marqué na ma. Mhm. gars yàqu na. yàqu na lu tax mu yàqu. parce que gis nañ ni non dama lay poser question gars nañ yàqu na ñu ne yàqu. gis nañu bëri ci bari ku ci voyage doo ñëwaat parfois am na mbir yoo xam te sax dañoo yëpp dañoo pour yow ak kii laa fa lan moo war loolu. waaw mm, parce que promoteurs yi ñoo bariwul. waaw. soo xoolee ñaata licence la ñu am day ëpp 1000 wala 2000 licence ci ay mbër. promoteurs yëpp soo leen jëlee sax mën nañu fay. bari ngeen de. Hmm. Mm-hmm. ah mais mbër yee ñu ëpp fuuf. Mm-hmm. waaw. yow lan que lu ma wax rek sànq mooy il faut que état bi dugal ci loxo parce que tey bëri na ay jeunes yoo xam ne si bëree leen yaakaar mooy seen métier il faut que ñu dugal seen loxo waat sponsor yi ñu ñëw ñu jàppale ñu pour ñu dem tey suñu sañoon chaque dimanche bëri am suñu sañoon saison bi mbëri yi mbër yi am licence yëpp dañuy bëri si saison bi yëpp. Mhm. lan mooy sama ambition si bëre bi waaw dem ba nekk. Hmm. koo xam ni kon ñoom Aziz Ndiaye rek ndax ñoom ñooy suñu idole dama ba tëgg waaw dama ba tëgg ay mbër yu mag. gis hmm. waaw dem waaw ba mel ne ay ñoom Luc Nicolaï. gis hmm. waaw maa ngi ko doon suivre kon lu ma la wax si cas Aziz Ndiaye rek moom tamit doonee làmb si soit làmb da toox tudd parce que def na fi lu bari def na fi lu rëy di ko ñaanal yàlla suñu borom que ndogal yi dal ko mu teggee ko si moom ba delluwaat si njabootam parce que tey kenn ñaanalu ko woon lii parce que def na participer na si Sénégal daal. làmb pour l'instant noonu. apporté lu ma dara. lan moo la gën a marqué si. si lépp may loolu daf la marqué. lu ma gën a marqué mais bari na ay fee yu ma marqué si àdduna. parce que tamit nekkatuñu ay xale yooyu au moins dund nañ tuuti. mais lu ma gën a daal fee Euh, sàng ba ngay dugg si nii yaa ngi gis sama doom bu jigéen bi du ma woo waaw moom jour moom juddoo loolu marqué na ma parce que dama doon rêve à chaque fois dama depuis ma nekk xale ma ne su may taawloo yàlla naa taawloo doom bu jigéen tuddee ko sama maam mhm. loolu daf ma marqué te dama doon ñaan yàlla sama maam fekke turandoom si man parce que moo ma yar depuis ma am ay 7 mois ba nii ma tool sama maam bu jigéen moo ma yar moo tax ba ma ba ma bañ ma wooye ne ma sa jabar am na doom bu jigéen jour moom kontaan naa tam fu ma fekkoon duma ma yuux ba sànni si portable ma yoroon. Mm. waaw. bala ñoo kii tàggu ñu tàggali ko euh, sa xel day fàttu ñu gis ne instant bi àdduna bi ñu waxee gis nañu société bi affaire euh, yu bari gis nañu feebar bi ñu bari delluwaat sa xel ci yàlla. gisaat nga bu waaw adduna bi moo jox saw pour affaire xale yi man ba ma ko njëkkee gis ku ma ko njëkk a envoyé dama ko ne bu ma ko envoyé waat dama ko supprimer man ba ma leen gisee ay xale lañ quoi ça veut dire amuñu maturité ba pare sutura dafa baax. vidéo yooyu man su njëkkoon dal si man du siiw dafa ñu yoon nag parce que li ñu def noonu moom ñun ay jullit lañ am na loo xam ne ñun moomuñu ko parce que fee ngay dégg fii yëpp jullit ñi ñoo koy def fee ngay dégg fii yëpp nañu nañu yaraat suñu bopp yaraat suñuy njaboot tamit parce que tey dëkk bi dafa jaxasoo xale yi jum nañ ay xale lañ loolu du seen cër nañ delluwaat si yàlla xale yi ñu teg leen si yoonu siraatal mustaqim yóbbu leen ñu jàngi ñu jàng alxuraan tamit école baax na mais tamit ñun ay jullit lañ dañoo war a xam suñu diine gis nga xale yooyu noonu suñ leen jàngaloon seen diine loolu dañu am fitu def ko parent yi tamit du surveiller seeni doom parce que sa doom mënul génn suba ba ngoon wala dem fanaani fenn euh, te yow boo ko yëg non il faut parent yi di soññ xale yi di nekkaat ak ñoom ñun am nañ fi ay mag yu baax teg leen si siraatal mustaqim waaw jël référence si ay ñoom comme Soxna Jaara Buso mhm, jël référence si ça veut que Sénégal soo xoolee par rapport ak yeneen réew mi ñu amee ay scandale di am ay guerre civile ñun yooyu ñoo ñu téye kon nañ ko gën a fonkaat nañ ko nañ leen jàpp bu baax suñu mag yooyu ñoom ñëpp dañoo rafetaloon ñoom ñëpp soo xoolee ay mboq la ñu woon dañ daan demalante dañ daan dimbalante ñun bu ñu ñëw di ko yàq ñun tamit nañ melaat noonu suñuy doom suñuy sët suñ ñëwee malade noonu. Ameth l'émission Tir wax pour waxtaan ak yow ah, waaw Fatima di wax kontaan naa si seet bi ngeen mën seet di dell di nuyuwaat ñëpp di ñaan feebar bii nii yàlla na fi jeex ak jàmm mu jigee si àdduna bi yëpp. pour ku nekk mën a delluwaat say activité di leen ñaanal di ñaanal Sénégal di ñaanal ñëpp daal. di ko bëggee bu baax a baax moom Ameth euh, koo xamante ne suñu frère la di ko bëggee bu baax baax di ko ñaanal jàmm di ko wax boo xam ne bëgg na mu daal di ko ci xam

dañuy waxtaan ak ñuy doxante comme que nag bu été lañ nekk tàngaay bi ñu amee il faut waxtaan ak ñoom parce que ñii dañoo bokk ci làmb dañuy ñooy lépp day jógewaat nag bu baax a baax a ah. baax ba Bassirou Diouf